sénégalais. Mhm. dee ci Mali Port. ko def de. <laughs> waaw gis nga gis nga quand il y a eu quelque chose qui était fondamental à mhm. ci loo xam ne nii tax na sénégalais yi moytu moytu affaire u djihadisme mooy les événements sanglants en Algérie. le front le front islamique du salut ak conséquences yi mu am bañ koo gisee ak reyante bu metti ba rendi waate ba sénégalais yu bëri jeunes sénégalais yu bëri ci loolu lañu ñu woo ci idéologie boobu ma xamal leen ko nag dañoo non c'est-à-dire bokkul ci sunu culture ah. waaw bokkul ci sunu culture dañu am sunu culture bopp néew ma soppeeku di ci am néew ma du am ñoo xam ne nii danañ leen mais même ñi daan tenir les discours euh, radicalisés et tu ça xaw na wàññeeku parce que itam dee gi ñuy gis ak ren di mm. jël bopp bi teg fee defe naa yooyu sénégal yi ñemewuñu ko waaw bien que nag violence tamit am na fi moo tax nag dañu war a war a war a war a surveiller bu baax politiciens yi fii dañu am responsabilité ñun ñi ñëpp dañu am responsabilité dañu war a surveiller bu baax di xew ci réew mi di xool xale yi di leen encadrer di wax ak ñoom di def ay kii formation intergénérationnelle loolu waxtaan ak xale yi et puis dara dara yàggul daal et leur dire que voilà kii